aja sama gars ba léegi ñoo nekkat ni nekkat ni rek wel di awone te ngeen di activé cloche bi ndax do leen ko rëccu ben yoon ñu dem ci ki nga xamanteni modi tonto Ndiouga cham ak nga xamanteni modi di Dieynaba ak ma cham di doma fan ma cham wona Dieynaba ba mu ci si kër ki nga modi ni di mamam mamam ndega cham mamam nak amna lu mu ko doon wax est ce soxna ci ki nga xamanteni ni ndega cham ni nga xamanteni mom la mom la wax ki nga xamanteni ni moo di Dieynaba mi fi muy seyé parce que ni mu waxee moom dafa mel ni maam ñaaxut ko pour mu toog sëy pour mu pour mu muñ gis nañ ne wax ji lépp li mu doon wax mooy buñ ko saagaa mu fayu buñ ko dóoree mu fayu fexe sax ba borom këram maanaam fas ko pour mu ñibbisiwaat fi nga xamante ni moo di kër papaam est-ce que loolee maanaam bu fekkee ne kii sa sët la wala sa mbokk la est-ce que man war nga koo mën a digal loolu noonu buy sëy non comme nga maam moom dafa lu ko lu neex sëtam rek neex na ko mhm. ndaxte am na ñu nga xam ne seen dañoo bëgg seen sët yi bëgg seen sët yi ba buy daj ndaqar sax mhm. dañ koy bëgg a récupérer pour métit boobu jeex si moom loolu ñëpp xam nañ ko si maam mais comme que dafa tollu si sëy maam ji dakaa war a conseiller ne ko demal nga toog nga sëy si jeexan si commencement ba wax na ko waa bu amee boo amee métti ñëwal sama kër ba kenn fekk la fa affaire yooyu mm-hmm. mais ba muy fa mu jeexalee foofu foofoo tëj wax ji yëpp mm-hmm. parce que jox na ko xaalis mm-hmm. ne ko kuy sëy da ngay muñ demal nga toog te kuy sëy da ngay muñ daal di koy jox xaas ne ko jëndal biscuit jëndal cereeg meew jëndal diw jëndal saabu defar sa yaram foofu def na fa lu rafet mais xam nga commencement ba la mu waxoon lii nii daal tëj na ko muur na ko daal lu mujjee wax muur na ko mais du yoon sa sët di sëy amee na am am problème nga ne ko tasal booy tasatee bul ñëw fii ñëwal sama kër loolu du yoon mais jox na ko xaalis te nee ko muñal tamit mais est xaalis bi mu ko jox noonu tamit yoon la ndax bu fekkee ne moom dafa am borom kër di sëy te kër gi mu nekk moom mu nekk fa jekk war a togg mm-hmm. war a yekk tamit ñu jox ko xaalis naan ko boo demee na nga jënd biskit ak soow ak yu mel noonu mm-hmm. est tamit xaalis bi mu ko jox ni yoon la ak li mu ko wax pour mu jënd ko si tamit li mu ko waroon wax la waaw loolu yoon la ndaxte nit yàgg na di sëy fii nit di wala jambu joxe xaar ne la demal bu ngone di nga fekk wax ji sa marché ba wala si grand place yi mais comme que sa mam mo la ko jox wala sa mbokk mo la ko jox mën na am peut-être du dem taxaw la fenn di la waxal mais pro yeureum na ak situation bu mu nek motax mu yëkëti xaas bobu jox ko mais du dara du dara ñu dem kër ki nga xamanteni modi alkali fekk fa dam ak nga xamanteni modi mariam dammi dafa nek ko xamante day liggey si kër gi ñu koy fay muy nettoyer wala muy balé wala mo xam lu muy def lu muy liggey mais gis nañ mu taxaw ak Mariam di ko problème bi nga xamanteni mo am ci kër gi mu melni kon mom mi amul secret bo xamanteni ni da koy neubal wa kër gi est ce que bu fekkene da nga nek si kër di liggey yene secret yi nga xamanteni moom ngoy xam est ce que lepp dang ko wara wax yi nga xamanteni ni di jëkkëru borom kër gi wala dang ko wax borom borom kër gi non non ñeent yi ñett yi nit da ka wara xam mhm. bo ci kër di liggey wala nga nekk gardien wala nga nekk chauffeur di dawalal sa patron ñett yi dafa wara a nekk si yow waroo loo gis di ko nettali borom kër ga waroo tamit di liggéey si kër loo gis di ko nettali sa patron waroo di dawal di dem di loo gis si mbedd ma ñëw nettali ko sa patron parce que yow da ngay liggéey jéema la maanu te liggéey fa liggéey bu rafet ba tax bu ëllëgee boo génnee boo dajeeg ñoom doo rus mais nga wax wax jo xamne ne dafa nek wax jo xamne jabaram bu ko diggé wala jëkkëram bu ko diggé mën na tas sey, wala mën na xuloo moog jabaram wala jëkër ji ak jabar ji lool bu boba yow bu jógee si yow bu féké nit nga gor nga war nga rusté war nga am gatché gu reey reey reey motax kuy liggéey ci kër wala nga nek serveur wala nga nek gardien da ngay jéma manu té sa lamine ba yow yalla def fa nga joggé fa su ko nga am fa permanence bu rafet ñi nga nekkal ëlë bo génné bo leen gisé yow do rus bu sëgg di am ñoom ñooy sëgg waaye yow mi xam ne yaa fa nekkoon def fa geste bu rafet boo xam ne bu ëllëgee soo génnee ba dajeek ñoom doo mus a sëgg na lépp rafet parce que da ngay liggéey ñoom tamit dañ lay fay kon rafet da liggéey waaye ñoom dañ lay fay kon na lépp rafet kon nag yéen ñi nga xamante yéen lañ jël ngeen di liggéey si kër yi am leen sutura nëbbal leen seen secret yi ndax ñeneen bañ koo xam acca laal leen sem bi te ngeen bës commentaire bi may ñu kër jaajëf